بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi nu ngi sant sunu boroom noo ngi koy bàkk di ko kañ di julli di sëlmal ci ab yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nu ngi ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamim xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ beneen yoon ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam sunu bi ndab tey ñu ngi koy def ci kenn ci góor yooya nga xam ni alquran daf leen a tagg ñu daroon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni ñu koy waxee ci muqaddimay bind bu nekk ci bind yi waxtaanee dund saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam solo si moom fees ko takk romb na ko ndax ay mbir yu bari yoo xam ni mooy ya ko sabab bokk na ca yooyee mooy ñooñele góor ak ñooñele jigéen ñoom ñooy ñi suñu borom garanti ci suñu xeet wii kon képp ku ut ku muy roy bu moyee ñooña baaxul bokk na ci yooyee mooy borom bi subhanahu wa taala dafa bind doomu aadama def ci moom melokaan wu tax mu bëgg ay nettali ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi nekk ci yoonu caaxaan dañuy sawar lool ci ñu leen di nettali ña nga xam ni ñoom ñooy ay caaxaankat te di ci ay njiit noonu la borom bi def ñi gëm yàlla dañuy sawar lool tey kontaan ci bu ñuy dégg nettali gaa yu baax yi nga xam ni ñoo leen jiitu woon nga xam ni laqad kaana fi qasasihim ibra waxtaanee seen dundukat ak waaroom ak fàttali ko ak defaru moo ca nekk bokk na ca yooyee mooy àddina buy dox lëf bu yàggee mën naa suppiku yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxaaba yam yaroon lan doon dund loolu mooy piir ba yonent yàlla bi dañu woon ku dund da nga gis ay wuute yu bari waaye ku bëgg a mucc nekkal ci li ma nekk maak samay saxaaba loola jàpp naa ne ku ko bëgg a xam te fekke woog histoire rek nga mën a jàng mu nettali la ko bokk na ca yooyee mooy borom bi subhaanahu wa taala ci boppam dafa tagg gaa yi ci alquran yonent bi tagg leen ci ay xadiisam jàpp naa ne yooyee góor ak yooyee jigéen xam seen dundukat ak soññe ma nga ca kon yu mel noonu ak yeneen yoo xam ne tuddeesu ko sabab lay doon ci bind yi bind la yooyu di ko nafar dafay dimbali aji gëm yàlla ci ak ndëgër laayam ci wàllu diineem eh waxal kële na ko yaayam tey kon tey noo ngeeg kenn ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy muaad ibni jabal muaad ibni jabal nga xam ni bokk na ci gën a riche yoo xam ni noppam muaaz dégg na ko mu bàyyi koo ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy inni uhibbuka fillah xam ngeen loolu manqabatun azimatun jiddu azim ab ab ab garaata ngi boo xam ni bu rëy rëy rëy rëy rëy xam ngeen xel yéen ñépp nii yonent bi du kontaan ci ku yàlla kontaanul ci moom déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku mu kontaan ci moom rek dafa fekk yàlla dafa kontaan ci kooku yonent bi dafa xool muaad ba mu yàgg mu ne ko yaa muaad mu ni naam mu ni ko yaa muaad mu ni naam mu ni ko yaa muaad mu ni naam mu ni ko wallahi te xoolal yonent bi alayhi salaam lépp lu mu wax te giñu ko loola lu nuy dëggal lay doon ndax borom bi moo tagg aw làmmañam ni wa maa yantiqu anil hawa moom saa bu yëkkatee kàddoom rek yëgal ni dëgg ko tax a jóg waaye bànneex du ko tax a wax yonent bi ni ko Muaaz mu ni naam mu ni ko giñ naa ci sama borom man Muhammad ni man dama laa bëgg allahu akbar loolu jàpp naa ni kenn ci ñun kàddu googu buñ ko xaajoon ci digg bi rek nga dégg genn wàll gi rek loola daf lay doy dalal xel ba keroog ngay faatu Muaaz ibni Jabal waxtaanee ko mbokk yi nag mooy waxtaanee xam-xam waxtaanee Muaaz mooy waxtaanee xam-xam ndax ku siiwoon la ci biir saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam siiwu xam-xam nga xam ni saa bu ñuy waxtaanee Muaz rek jëmmi Muaz bu ñu koy waxtaanee jàppal ni jëmmi xam-xam la ñuy waxtaanee dund Muaz dafay ñëw ngir fàttali la dund saxaaba ya waaye dafay ñëw nag ngir soññaat la ci xam-xam dafay ñëw ngir bëggloowaat la xam-xam dund Muaz ci boppam bu jàllee na mu war a jàllee képp ku ko déglu dana am lu mu sànniwaat ci sa xol ci ay étincelles yi bëgg xam-xam la ko waral mooy aw taggam la ca gën a rëy mooy mën a jàng ak mën a jàngale ak mën a daawa ndax man xam bi gën a rëy boo xam ne saxaaba yépp xàmmee nañ ko Muaaz mooy alfiqhu fi diin muy dégg diine loola nag day méngoo kiif kiif waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man yuridi llahu bihi xayran yufaqihu fi diin képp koo xam ne yàlla dafa namm ci moom yiw ëllëg daf lay déggloo diine arab yi dañuy wax ni bépp kàddu bu nu wax rek tagg ca mbir yëgal ni xas nan safaan ba ku yàlla namm ci moom yiw da koy déggloo diine kon ñàkk dégg diine musiba la dégg diine nag ala maratiba ci ay martaba la ndax nit dana ëppale nit ëppale ko nit ëppalewaat ko nit ëppalewaat ko ndax wa fawqa kulli di ilmin alim mbokk yi nicmatul ilmi min aadami niami xéewalu xam-xam da ci xéewal yi gën a rëy yu suñ borom baaxe ay jaamam la bokk bal sax nag la lay wan solo saak njariñ ya mooy yàlla fii ci àddina amut lum tànn loo yonent bi muy ñaan yàlla dolli ko ko lu dul xam-xam soo demee ci suratu taaha wala taajal bilqurani min qabli an yuqda ilayka waxyu mu ni wa qul rabbi zidni ilman booy ñaan moom bu dee ndollent rek li nga am moom yàlla dolli la ko booy ñaan xam-xam moom moo jara ñaan yàlla dolli la ko amut leneen nag ci àddina looy gis daanaka ci poñeti àddina yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaan yàlla dolli ko ko déedéet waaye xam-xam moom yonent bi da daan jàng alquran saxaaba yi di ko jàng ñuy ñaan yàlla dolli leen ko loolu lu rëy la bokk na ci yi lay wan ni xam-xam lu rëy la lu màgg la mooy borom xam-xam daa bokk ci góori yàlla yi yàlla tànn def leen seede allahu akbar mbokk yi xam ngeen ni seede ci sunu lislaam ji jigéen ju ñuy fase jigéen ju ñuy fayli xale yu jërim yu ñu yore seen alal bañ màgg ñu war leen koo jox miraas mboolem xeet yi nga xam ne dafa laaj ay seede wa ashhidu daway adlin minkum du ñu jekki-jekki rek ñëw ci mbooloo mi jël benn waay ni ko kaay nekk seede déedéet seede dañ koy tànn ci ñi gën a maandu ci ñi gën a jub ñi gën a sàmm seen kaddu ñi gën a ormaal seen bopp ñooña la ñuy tànn ñu nekk seede borom bi subhanahu wa taala dafa tànn borom xam-xam boole ko ci ñi koy seede moom sunu borom allahu akbar loolu su fekkonte ni borom xam-xam amut benn martaba ju dul jooju rek doy na mooy yàlla moom tànn na nga bokk ci ñi koy témoin sunu borom mu ni ci suratu ali imran aaya fukk ak juróom-ñett shahida allahu annahu la ilaha illa hu والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم borom bi gën a màgg mooy seedalu li gën a màgg muy pas-pas di ko seedaloo ki gën a màgg ci nit ñi muy ab borom xam-xam borom bi gën a màgg mooy seedaloo li gën a màgg ci lu ñuy fas muy pas-pas di ko seedaloo ki gën a màgg ci nit ñi muy borom xam-xam shahida allahu yàlla nee na seede na moom yàlla ni annahu laa ilaha illa huwa yàlla moom doy na seede moom mooy premier témoin bi nga xam ni day seede ni amul kun war a jaamu ci dëgg ku dul suñu borom wal malaikatu bi mu paree malaaka yi ñoo ñëw nekk deuxième position seede li yàlla seede mu ni wa ulul ilmi borom xam-xam yi ñëw bokk ca ñett ñi la yàlla doyloo ci seede allahu akbar kon jàpp naa ni mbindee fi li ñuy bari bari bari ña suñ borom tànn leen kaay leen bokk ci seede yi ñooñu ñu rëy lañ bokk yi ñooñu nag bu leen jàpp ni ay góor kese lay doon ay jigéen danañ ca bokk bu leen jàpp ni ay ndaw kese ay mag rek la ay ndaw dañ cay bokk tamit maanaam amul ak jagoo sunu borom mu ni qaiman bil qist seede goo xam day tege ci maandu te ci ni laa ilaha illa hu amut lenn lu nu war a jaamu ci dëgg lu dul sunu borom al azizul hakim sunu borom mooy ki not ci nguuram te ami sañ-sañ waaye mooy ki xereñ koo xam ne lu mu def rek noonu la nu mu ko defeet na la borom bi seede na ni lim ñu digal muy ragal yàlla ñi ci ëpp chance ci nit ñi pour gën koo def mooy borom xam-xam yi borom xam-xam bu ragalut yàlla bul sonn jàppale du borom xam-xam ak kum mën a doon nag da nga koy gis ak da nga koy dégg ci yam mag la wala gone la góor la wala jigéen la su fekkee nit ki nit ñaa ngi koy jiiñ xam-xam te boo xoolee ay jëfam ak i jëflanteem ay waxam ak i pas-pasam ak ragal yàlla feeñu ci boo giñee ci yàlla ni kii du borom xam-xam doo kafaara insha allah parce que kooku du borom xam-xam ndax yàlla dani innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama innama xam ngeen adaatu xasr ñi jàng luxal arabiya xam nañ ni innama li muy tekki ci wolof mooy lii rekk la leneen lu dut lii du moom innama al muminuuna ñi gëm yàlla rek rek rek ixwa ñooy ay mbokk ñeneen ñu du ñu doom duñu ay mbokk innama al innama yaxsha allaha kii ragal yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg min ibadihi ci jaamam ñi gën a ragal yàlla mu ne al ulama mooy borom xam-xam yi nga xam ne ñoom moom ñooy gën a ñooy féete kaw ci ragal yàlla ndax kullama kaana al abdu arafa bi rabbi kaana bi rabbi axsha nit ki lu mu gën a xam yàlla rek di gën a ragal seetlu leen ko gis nga boo nekkee ndongalu toll ci sàkku xam-xam da ngay dëgër fit gis nga boo nekkee ndongalu toll ci sàkku xam-xam da ngay dëgër fit maanaam da ngay ñeme aay ñeme xadiis yi waaye gis nga booy gën a jàngatu da ngay commencé ragal léegi loolu nag ñi ci yeewuwut léegi da ngay gis mag moo xamoon mu nekk mag mu jàmbaar nga xam ne daanaka day xaatar xaatar yi dem rek nga jékki-jékki gis mu commencé am yu muy moytandiku am yu muy yeexe am yu muy gaawee su ko defee ndaw li dara tam tàng dana ah diw dafa bàyyeeku léegi diw dafa fekk wallaahi du bàyyeeku xam-xam looy gën a yi xool ko ci sa mbiri àddina rek doomu aadama moom boo yéeg ci garabu kóoneeg ni mu njoolee loo gën a yéeg ca kaw saw fi di gën a téeli téeli parce que booy daanu sab jël day rëy moo tax ku la gën a kawe bi yéeg moo lay gën a tiit ci xam-xam noonu la mel ku la gën a am xam-xam moo la gën a am am ak dal ak ragal borom bi subhanahu wa taala dani ñi am xam-xam day ak ñi amul xam-xam duma leen yamale mukk allahu akbar qul hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun innama yatadakkaru ulul albaab ndax ñi xam ak ñi xamut danañ yem déedéet du ñu yem laa yastawi alxabiisu wa tayib lu baax ak lu bon duñ yem wala zulumaatu wala nuur keppaar ak leer ak lëndëm wala zëll wala xaruur keppaar gi sedd gi ak tàngoor wi wa ma yastawi al axyaau wala al amwaat ki dee ak ki dund duñ yam kadalika laa yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun ñi xam ak ñi xamut duñ yam sunu borom mu ni innama yatadakkaru ulul albaab ñi nga xam ne dañuy fàttaliku di waaru dëgg jëriñu ñooñu mooy borom xel yi nga xamante ni ñoom yàlla may na leen xam-xam sunu borom ni fii ci àddina moom yàlla bu yëkkati ay daraja ña gën a kawe nga xam ne ku leen di xool da ngay téen mooy ña xam sunu borom ni yarfai llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma daraja yàlla bu yëkkatee ñi gëm yàlla ay daraja day seppi ñi xam nag yëkkati leen ca kaw nga xam ne ku leen di xool da ngay téen gis nga boo ko toppoon ci alquran da ngay indi ay ayat yu bare bare bari téere bu mel ni kële téere al allaama ibn al qayim ba miftaaxu daari saada miftaaxu daari saada nga xam ne ibn al qayim moo ko taalif boo delloo ci téere boobu di miftaaxu daari saada di nga fa fekk benn bunt boo xam ne ibn al qayyim mi ngi ko def ci xam-xam wala ay bunt yu bari yu mu def ci xam-xam boo demee lim na ci lu mat téeméer téeméeri point ak fukk ak nàngam wala sax ñaar fukk ak nàngam téeméeri tomb ak ñaar fukk ak nàngam ci di wane xam-xam ni mu amee solo ak nekk ko ku ko nekk ni muy rawee ñeneen ñu dut ñoom ca la dem di lim yii ma lim nii lim na ko ci ak yu ko ëpp dem na ba wax ni même soo dikkee ci rab yi sax xaj bu am xam-xam day gën moroomi rabam yépp mu joxe misaal ma mu ni sunu borom dafa teral ab xaj ngir ni daa am xam-xam ndax lay wane teraanga ja mooy xaj ci boppam suñ ko jàngalee nu nuy rëbbee ba xaj bi mën a rëbb nga wax bismillah yabal ko mu dem xaj ba su jàppee dara boo ko indee day dagan nga lekk ko amul medd na amul day dagan nga lekk ko muy xajab rëbb te beneen xaj bu ko def wala fas wu matt dara wala lee déedéet loolu du dagan a lekk soo demee ci suutul maida sunu borom ma ngi koy tudd ba yegsi ci mukallibina tuallimunahunna mimma allamakum allah fa kulu mimma amsakna wadkuru sma allah mooy bañ lay laaj yi dagan qul uxila lakum tayibat wa ma allamtum min aljawarih lépp lu teey yasalunaka maada uxilla lahum qul uxila lakum tayibat lan lañ daganal ci ñun suñu borom mu ni lépp lu teey te laab dagan na ci yéen wa ma allamtum min aljawarih ak jur gi lu mel ni xaj lépp loo xam ni jàngal ngeen leen suñu borom ni tuallimunahunna mimma allamakumullah mooy da ngeen leen di xamal li leen yàlla xamal mooy am na xam-xam kon su boobaa su rëbbee mu ni fa kulu mimma amsakna lekk leen waskur smallah ngeen tudd yàlla loolu xaj bu jàng rëbb dong lan ko may kon loolu dalay wan ni muy yëxe misaal mu ni kon suñ demee ba ci rab yi rab wu am lu mu xam sax mooy gën a valeur rab wu xamul dara kon ci doomu aadama yi taxut di wax bal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nga gis nit yàlla may ko ay may nga di ko ñee ñeetaange ñee naan ci tët tët tët cay bu ma amoon li diw am loolu lislaam da koy tere wala tatamannaw ma faddala allahu bihi baadakum ala baad suñu borom ni bu kenn nekk fi naan su ma yàlla defoon ma mel ni diw déedéet yàlla nim la def noonu la bu fi kenn nekk naan bu ma amoon li diw am déedéet ku nekk la nga am looloo baax ci yow waaye nag yonent bi nee na ñee nag su ma meloon ni diw moom jar naa wax ci kaw ñaari biir kese mooy benn waay joo xam ne yàlla da koo dénk alal mu am alal lool ñemeeg joxe nag fii sabilillah nga xam ni foo ko fekk rek mi ngi wut ay porox ndoll yoo xamante ni fa lay fattee ay turóom te xam ngeen ni tur yu am solo ngoog di ko fatt gis nga sarax yu sew sewaan yi joxe fii sabilillah anfiqu mimma razaqnakum yooyu ay yëf la yoo xam ne wallahi waxuma la alaxira ay musiba yu war a tàbbi ci sa kaw fii ci àddina yàlla dala koy fegal keneen ki yonent yàlla bi mu sallallahu alayhi wasallam mooy waajoo xam ne yàlla daf koo dénk xam-xam mu di ko jàngale di ko jëfee di ca àtte nit ñi mu di ko jàngale di ko jëfee di ca àtte nit ñi kooku moom jar na nga ñee su ma su ma su ma meloon ni moom yonent bi loolu moom jar na ko beneen bi ci des mooy borom bi subhanahu wa taala dani saa bu ñu amee masala moo xam dafa lëj ni këtt ni jon nañ ko delloo ci borom xam-xam sunu borom mu ni walaw radduuhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladina yastanbituunahu min bal sax lu ko jiitu sunu borom dafa digle nañ topp borom xam-xam atiu llaha yàlla mu ni topp leen yàlla wa atiu rasula ngeen topp yonent bi wa ulil amri minkum te ngeen topp ulul amr jaabir ibni abdillah moom abdullah ibni abbas kenn ku ci nekk biñ ko laajee lan mooy ulul amr mu ni al ulama hum ulul amr borom xam-xam yi ñoom la yàlla nam mu ci ulul amr kon yàlla mooy topp leen yàlla ko yonentam topp borom xam-xam yi kon dañoo war a topp yàlla topp yonent bi waaye topp borom xam-xam comme ni ñu leen di toppee su fekkee ñu ngay jubal nag moo tax suñu borom ni masala mu teewati ci kaw suuf ak masala mu mën a doon balañ caa juuyoo rawatina nag nawaasil yi xam nga dafa am masala yoo xam leer na jarul delloo ci borom xam-xam parce que leer na ba pare ñépp a ko xam ku jàngul sax leer na ci moom waaye nawaasil mooy masala yi nga xam ne day dem ba mu yàgg mu dab jamono moo tax am na benn borom xam-xam bu mag dafa taalif benn téere dama teewlootul turu borom xam-xam waaye mi ngi ko tuddee al ahkaamu nawa ahkaamu nawaasil atte yi nga xam mooy yi teew ci jamono yu mel ni guerre yi am lu mer ni ëmb boo xam jaarul ci biir yaay dañ ko def ci ay laboratoire comme ni ko tubaab yi defee lu mel ni masala yi bees yooyu lu mel ni jël xolub jàmbur jox ko keneen lu mel ni jël dereti kii jox ko ke ca des lu mel ni autopsie yooyu xeet ya nga xam dafay daj dab jamono borom xam-xam yi dajale nañ ci masail yu mel noonu lan la ci borom xam-xam yi muy masala yu jar a xam nag yu jar a teey tamit teg ci ndax yooyu du ay téere yi fiq yoo xam ñoo koy rëdd teg sunu borom mu ni saa bu masala yi bettaatee walaw radduuhu ila rasul buñ ko delloo woon ci yonent bi yonent bi néewatu fi wa ila ulil amri minkum wala ñu delloo ko ca borom xam-xam ya lu am solo ngoo nun nag duñ ko def dañoo ñeme masala yi lool loolu day war ne dañoo xamul maanaam dañoo ñeme masala yi torop dañoo xamul opération médecin buy doog a tàmbali du ko ñeme parce que xam na danger bi ci nekk opéré xol waxi nopp opéré bët waxi nopp lu tax parce que xam na danger yi ci nekk te borom xam-xam bi day opéré parce que masala mu ñëw loo xam ne ak jëfe da caa war a tekki nga daal da cay àddu loo xam ne genn kàddu mën nga ko wax fallaxe àddina yépp genn kàddu rek ngay wax nga fallaxe àddina yépp parce que menn masala moo ubbee nga juum ci ay junniy junniy nit mën nañoo juum ci sa kaw juum boobee moo tax kenn ci borom xam-xamu ni zallatul aalimi zallatul aalam alaalim mooy borom xam-xam alaalam mooy àddina muy tarxiis ak borom xam-xam ni bàpp ci suuf mu ne ab àddina mooy naan bàpp ci ginnaawam kon ndax ña koy roy ni ñu baree kon loolu mbokk yi bii muqaddima day moom la abu ammar mahmud al misri xafidahu llah wa raahu wa jami al ulama ubbee dund muaz lu ko waral ndax bu ñuy wax ci muaz faw ñu wax ci xam-xam ibni jabal radiallahu anhu wa arda ñu ànd xam ni mbokk yi yoon wi gën a gaaw pour pëtëxal nit ki biir àjjana mooy sàkku xam-xam yent yàlla bi ne man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu tariqan ila aljanna ku ngàbb sa téere dogu takk sa ndigg laxasaayu ni man damaa fas yéene sàkku xam-xam yëgal ni xotti nga yoonu àjjanay dem bu dakkut rek li olof nag ak ñoddi moom bu dakkut dikk boo tul ëlbatiwul rek egg fa nga jëm yent yàlla bi nee na man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahala allahu lahu tari salaka allahu bi tariqan ila aljanna waaye tariqan min turuqil janna ku soobu aw yoon ñottee ku jëm ci sàkku xam-xam mu ne yëgal ni yàlla sóob na la ci yoonu dem tàbbi àjjana mu ne wa inna almalaikata la tadau ajnihataha li talibi lilmi ridan bima yasna allahu akbar mu ne yàlla dafa yebal ay malaaka ni leen daw leen gaaw ngeen jiitu kii sàkku ji xam-xam ngeen lal seen laaf yi pour ñoom ñu joggi ca kawam ndax tera teral leen maanaam nit ki li ñuy wax lalal naa la sunu borom day wax malaaka yi lal leen seen laaf yi ngir ñu lalal ko waajooju nga xam moom ab taalibe la rek ab taalibe moom sax nekk gul borom xam-xam moom ab taalibe la rek jug di sàkku ci xam-xam ñu ne malaaka yi lalal leen ko seeni laaf kon fa kay fa ki xam ba noppi mu ne wa inna al aalima la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi l ardi walxiitaan fi jawfi l ma yàlla subhana taala def na ni kii borom xam-xam bi mboolem li nekk ci asamaan da koy jéggalul yàlla mboolem li nekk ci suuf da koy jéggalul yàlla mboolem xeeti jën yi wuute te bari yi nekk ci biir géeji àddina yu yaatu yi dañ koy jéggalul yàlla ñaata multi milliards ci ay malaaka par jour ñaata multi milliards ci ay jën par bis la waxuma par sa dund yëpp ay multi milliards par bis kese ñoo lay jéggalul yàlla subhanahu wa taala ndax soxla wa ku la jéggal ndax soxla woo ku la jéggal jéggalulu te it jéggalu googaa daa gën a wóor sa gos nag ndax ñooñu bu ñu la jéggaloo rawatina man fi samawaat ñi ci asamaan yi ak malaaka yi sunu borom da lay jéggal nee na wa inna fadla al aalimi ala al aabid ka fadli al qamari laylata al badri ala saairi al kawaakib ngëneel li nga xam ni borom xam-xam am na ko ci kaw ku xamut maanaam bu ñu doon def comparaison di comparer diggante ki xam ak ki xamut ñu ni soriyoo gin soriyoo mi ngi mel ni maanaam ki xamut mooy jaamukatu yàlla même bu nekkee jaamukatu yàlla sax koo xam ne moom fonk na jàkka ja jaamukatu yàlla la day woor woori sunna waaye nag xamut dara wala boo xam-xam amut amut daanaka lu bari nga gam-gam le ko borom xam-xam bu xam tey jëfite ragal yàlla mu ni seen différence mi ngi mel ni weer wi bu tolloo ci fukki ñett fukk ak ñeent fukk ak juróom leer naññ ne tàcc ci digg asamaan si ni muy muuree biddiw yépp noonu la borom xam-xam bi gënee ki dul borom xam-xam donte jaamukatu yàlla la mu teg ci ne wa inna al ulama warasatul anbiya borom xam-xam yi ñoo doon yonant yi yonant yi ñoom buñ fi nekkatul borom xam-xam yee fi nekk mu ne wa inna al anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama waaye nag yëgal ni miraas mi du miraasum alal di ndax ñoom bàyyiwuñ dërëm bàyyiwuñ dinaar wa innama warrasu al ilma ñoom miraas min fi bàyyi mooy xam-xam fa man axadahu axada bi xaddin waafir nee na képp koo xam ne jël nga ca miraas ma de yow jox nañ la cër bu ko mag cër bu doy kon tey mbokk yi ginnaaw muqaddima boobu nga xam ni noonu ma jiitalee muqaddima bi ci dund muaad noonu la muaad di jiitoo borom xam-xam yowmal qiyaama yonte yàlla bi nee na yowmal qiyaam bu ñu fa yeggee borom xam-xam bu ñu defee rang muaad ca kanam allahu akbar muaz ca kanam nii ñu jëlee ab muqaddima def ko ci kanamu dund muaz noonu la muaz di jiitoo ñi xam ndax dafa nekk koo xam ni maanaam yàlla daf koo defal tawfiq ci yoonu xam-xam imaamul fuqaha wa kanzul ulama koom-koom mi nga xam ni borom xam-xam yi dañ koy bàkkoo di ko ndamoo imaam joo xam ni borom xam-xam bu ñu dajee nanguñ ni fuqaha yi moo ci gën a dégg diine bi shahadati nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci jeunesse yi ñi ci gënoon a nekk ndaw te bari xam-xam ndax atam yi ndeysaan bariwut waaye kersa ga lewet ga taaru lool nag der bi dafa weexoon tàll moom muaad ibni jabal xar kanam gi leer naññ diggante ba ñu kanam yi am sàkkare yàlla foo xoolee li wër bët yi dafa mel ni foo ko fekk daf koy tusngal maanaam borom bi da ko bindoon melokaan nag wu neex a xool bal sax nag loolu bokk na ci li fekki ñaanug yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ku ko gis bëgg ko muaad ibni jabal nga xam ni moo ubbi yaman ba yaman mel ni mel tey ba fii may toog di wax ak yéen ci heure bi yaman ci dëkk yi ñu gën a tànn ci àddina bi ci xam-xam la bokk muaada ko tijji woon mooy ki gën a xam li dagan ak li araam ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax omar ibn alxataab da ko doon xool ba mu yàgg mu ni ko lawlaa muaadu la halaka omar gis nga bu dul woon ak muaaz omar dana alku ndax moom omar atte yi xam ngeen jiitam réew yombut jiitam réew rek yombut jiitam dëkk sax daa yombut xoola omar jiite àddina bi yépp masala mu xew ci àddina bi yaay qaadi bi gën a mag mu jël muaz teg ci peggam ndax xam na seede bi ko yonent bi seedeeloon sallallahu alayhi wa sallam bal saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa buñ doon waxtaan ba muaz yegg si da ngay sentir ni kii yegg si bokkut ak ki njëkkoon a yegg si lu tax ñëpp dañuy si géndoo xool ko waaye jox ko xëy ba ji nga xam yàlla daf koo defaloon xëy ba mooy wegeel mooy koo xam nit ñi ku la gis rek ormal la parce que yàlla moo koy def moom boo ko dee déglu muy wax xam-xam dafa mel ni lu'lu ak marjaan per yooyu nga xam ni mooy peri jamaa mooy génn ci gémmiñ gi ngir yàlla ni mu barkeelee woon ay waxam ndeysaan guddul fan li gën a bari ci wuutey borom xam-xam yi ñu ni fanweeri at ak ñett 33 ans la dund la hawla wala quwata illa billah ba pare ñu seedeel ko ni ko xeetu muhammad moo ci gën a xam alxalaal wal xaraam maanaam muaad li mu tasaare lépp ci 9 ans la ko tasaare ni ni mel ak li mu liggéey mi ngi ko def ci juróom-ñeenti at. kon Muaad ibni Jabal borom xam-xam yi ñenn ñi dañ ni fanweeri at ak ñett la dund am ñu ni sax matu ko ndax ñaar fukki at ak juróom-ñett ci la faatoo wa ala ayin kaan bu mu ci mën a doon ci ñaari raqamu yooyu. dama ni bu dundoon juróom fukki at sax def na lu ko dunu téeméeri at defut kon te at yooyu nag bari waa na ñu ñu nekk ay kéemaan nag ñu ci faatu nag at yooyu qadiman wa xadiitan ca lu yàgg la ba tey ndig digal soosu ñeen fukk jëm suuf wala sax fanweer ak juróom jëm suuf bari waa na fóorey lislaam yi nga xam ne tey ñi ngi mel ni ñi ngi dund ba tey ñoo xam ne romb ñu ko ca lu yàgg la ba lu mujj ni ñoom imaamu nawawi rahimahullah imaam alxaafid alxakami rahimahullah ba sunu fii am na sunu mbokk mu baax mu fi nekkoon rahimahullahu rahmatan waasia muy Cheikh Aline Gueye gis ngeen ko moom it kadalik ndax fanweeri atam ak ñett romb na ko daanaka ca la yam ci ñi ko xam loolu lañ ko waxal ba tey mi ngi mel ni mi ngi dund nun ndongay xam-xam yi ila yawmina hada ñi ngi jariñu jariñu ci moom ku defoon dundam te waxooy atam da ngay yaakaar ni ca salaf la bokkoon ku defoon dundam te waxooy atam da ngay yaakaar dund na juróom-benn fukk jëm kaw moom la ibni taymiya di wax ni xam-xam bu ko yàlla barkeelee maanaam ajuwut ca gudd fan nga gàtt ga waaye mi ngi aju ci barke bu liggéey bi ndax imaamu nawawi rahimahullah borom xam-xam yi dañ ni li mu tasaare ci sunna li mu tasaare ci sunna soo ko calculoon dafa mel ni bis bi mu juddoo la commencé taalif ba bi mu faatoo xam ngeen loolu mënta nekk ku judd xanaa bala ngaa bala ngaa am bala ngaa commencé taalif di nga fi jàng dara jàppal ni kon fii ba fukki at ak nangam moom jàng ci jàng la toll at yooyu anamu imaamu Nawawi ñu ne bu ñu doon calcul dundam di ko diviser bis bi mu juddoo ci la ñuy commencé naan ci la commencé liggéeyal lislaam ba bis bi mu faatoo ngir barke boo xam liggéeyam barkeeloon na ko muaad ibni jabal jiitu na xeet wi ci xam alxalaal walxaraam te loolu yonent bi moo ko seedeel salallahu alayhi wa sallam muaad ibni jabal meññeent la woon ci meññeent musaab ibni umayr loolu nag moo ci gën a neex nag ndax musaab moom loolu chance am dafa mel ni daal su ma doon wax muaaz ni mu nekkee liggéeyab musaab mooy musaab ci boppam buñ ko peeseelee lam am dañuy yëkkati muaaz tegaale ko ca kaw lam am ndax loolu wax jooju leer na maanaam Musab ibni Umayr buñ ko fayab liggéeyam ba noppi dañuy yëkkati Muaz teg ko Muaz ak lim liggéey dañ koy yëkkati teg ko ci kaw balance bu Musab lu waral loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dani képp koo xam ne dafa tegtal nit ki ba mu gindeeku baax jub jaar ci yoon yëgal ni la muy am ci tiyaaba am nga ci pourcentage parce que yaa tax mu jaar ci yoon wax ad daallu ala al xayri ka faaili Musab ibni Umayr bi mu ñëwee Madina gis ngeen ko ak lëggéeyam bu rëy ba mu fa def defe naa nettali naa ko marraat wa karraat nga xamante ni lewet geeg lewetuk Muaz gi sax dañuy wax ni mi ngi ko jëlee ci Musab ibnu Umayr ndax koo xamee da ngaa ñëw nit ñëw fekk la ci digg penc mi ngay waaraat mu menacé la saaga la bu doon ñu ne doo mën a maîtrise waaye lan la ko Musab wax tey ngeen a toog Saad ibnu Muaz Musab ibnu Umayr ñoom ñëpp déggal Muaz ibn Jabal ni tey ngeen a toog saaga ya xasta yi ak dóoraate xeex jëru ko man borom xel laa yéen borom xel ngeen toog leen ngeen déglu li may wax su fekkee li may wax convaincre na leen ngeen jël su fekkee convaincre leen ngeen taxañ ko delloo ma ko ñoom ñaar ñëpp ni ko ah wax dëgg yàlla li nga wax moom maandu na xoolal xoolal boobu xekk ma waaye ñaw ba ñu toogee day yëf yi bii tàbbi seen biiri xol sax duñ ko yëg ndax mbir mi yàlla moo def ci tempaay lu ñu ko fatt fatt fatt maanaam njubug yàlla saa bu naree ñëw yàllaay xotti dënn bi tàbbal ko ca man yuridu allahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam bu ko defee kon keroog laylatul aqaba muaz bokkoon na ca ñaar fukk 72 personnes ya ah wala 70 ya xam ngeen ni jaayante ci boppam daa doonoon benn phénomène boo xam ni buñ daan tànn dañ koy def gis ngeen ca Moussa alayhi salaam ca suratul A'raf ba ko suñu borom waxee na tànn ci nitam yi waxtaara Moussa li qawmihi sab'ina rajulan li miqaatina maanaam limab juróom-ñaar ak limab fukk ak ñaar ak limab juróom-ñaar fukk benn bu ci nekk kéemtaan na ci nekk. Ibn al-Qayyim rahimahullah boo dikkee ci wàllu faj. ci wàllu faj fajum sunna ibn al qayyim day wax ci limub juróom-ñaar kéemtaan yi ci nekk seetlu ngeen yu bare bare bare yonent bi sasana buy jàngale juróom-ñaar lay doon lu mel ni asalullah alazim rabbal arshi al ashfiq ak yeneen ak yeneen ak yeneen a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma tajidu hasiru a'udhu billahi al azim wa jil a'udhu bi kalimatillahi tammat min kulli shaytanin wa ñaan yu bare bare yoo xamante ni boo seetloo ci biir sunna yonent bi bi mu koy lim lim ak juróom-ñaar la joxe aouzu bi izzatillahi wa qudrati min charri ma tajidu wa tuxaadiru gis nga ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ni ñi jàng tëbb ci boppam xam nañ ni yu ci bare bare bari ay lim am na ca muy juróom-ñaar moo tax ci lay wax ni kon am na sew-sew yu ci nekk yoo xam ni ñi xam ñoom xam nañ ko borom bi subhanahu wa taala def juróom-ñaar fukk yañ tànnoon keroog ba ñuy giseeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam booba yëf yi yegg seegul madina Muaad ibni Jabal ca la bokkoon bu ko defee nag ca la yëf yi commencé tàbbi ca biir xolam bi Muaaz dellusee ca Madina ah daal di gis ni nag yëf yi kat lii Musaab ibni Umayr di doon woote kat dëgg la ndax dem naa ba gisal sama bët walay sam xabaru kal muayana liñ lay wax ak li nga gis bokkul ah ci la commencé nag di am ak ak ubbeeku jëm ci li nga xamante ni moom mooy wooteb yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ñu yegsee ci Madina ñu ànd kontaan lool fekk am na ay nit yoo xam ni ñoo ngi desoon ci dëkk bi di ay mag yu yeewu waaye tuubuñ dugg ci lislaam bokk na ca mag yooyu mooy Amr ibn al Jamuh nga xam ni qissaam nettali naa ko fi ay yoon waaye manees naa baamuwaat ngir mën a jariñuwaat xam ngeen ni bokkoon na ci Madina góor yi fa gënoon a siiw te gën a mag te gën a ñor mooy Amr ibn al Jamuh borom soox bu metti ba amr ibn al-jamuh moo doon wax yonent bi saa salaam xoolal saa waa kër ñu naan dañ may tere dem xare dem xare man ne du ma dem yonent bi ni ko ah tey nga toog mag nga mu ni ko man damay dem de damay dem ndax ñoom ñii dañoo bëgg tab- tàbbi àjjana ma it dama bëgg tàbbi àjjana yow sa sox bi daa metti mu ni ni may sooxe di lagaj lagaj sama tànk bi moom laa bëgg a lagaj lagaj tàbbi àjjana comme ñëpp yonent bi daal di wax waa këram bàyyi leen ko mu dem mu daal di dem daal di faatu góor googu yàlla dafa dekkoon kaana min saadaati bani salama gii rek bani salama ca kilifa ya la bokkoon wa sharifan min ashrafihim ku tedd la woon ci seen biir yàlla dafa dogal mag ña dañoo amoon ku nekk sa tóokóor sa wanag wala sa gannaaw kër jenn yàlla joo fay jaam kii laata kii uzza kii manaata kii kii kii kii hubal kii isaafa kii naila kenn ku ci nekk ak sa yàllay bopp yàlla joo xam ne yaa koy yett ba mu jekk defar ko ba mu jekk utal ko wanag nga xam ne saa boo soxlaa ca ngay dem boo yeewoo moom ngay jaamu waa ji amoon yàlla ju ñuy wax manaata mu jël yàlla ji daal di koy teg ci këram di ko jaamu ndeke ñoom muaad waar nañ waa këram ba doomam ju ñuy wax muaad ibni amr ibni jamuux tuub dugg ci lislaam te góor gi yëgu ko maanaam doom ji xale la woon moo tax bi mu tuubee mu bañ bàyyam fitnaal ko muy nëbb lislaam ji amr ibni jamuux ndeke waa këram dugg nañ ci lislaam waa kër gi dañuy bàyyi ba guddi jot bu paa bi tëddee rek ñu daal di gannaaw ndànk dem ca gannaaw jàpp xiram wa yeew ci buum watat yóbbu yóbbu yóbbu ba ca salte ba ca sën ba ca àll ba sànni fa yàlla ji ndax boo bëgg nañoo jëf waaye ñemewuñ paa bi comme mag la woon amir ibnil jam ba pare di soox teg ci bu yeewoo daal di dem ca jàlla ja muy jaam mu xool rek ndeysaan du fa gis yàlla ji ah yàlla ji dana am riit mbaa ña ko doon yóbbu ami tànk fun jaar mu daal di ànd ak ñoom di topp riit wi di topp riit wi ba dem fekk ko ca kaw sën ba mu mer lool xultu dagg ay saaga wax ay wax ndax xam ngeen ni loolu mooy plainte contre x mu def plainte contre x dagg ay saaga wax a wax ba xolam seet mu daal di jëlaat yàlla ji indi ci biir kër gi xale yi ñoom ñi patt pattiiral waxum dara yëgun lu xew ca suba sa góor gi teel a tëddaat xale yi daal di koy gannaawaat daal di jël yàlla ji dem ba ca sënd ba sànniwaat ko fa biñ ko sànnee ci sën bi mu xëyaat ñëw ndeysaan mer bi mu ñëwee mer mu wax ay wax wax xultu saaga wax a wax a wax ba yeggal xamul ku ko def mu jëlaat yàlla ji defar ba mu jekk yóbbu këram waaye bi mu ko yóbboo këram nag bii yoon daa bàyyi ba guddi mu daal di dem defar yàlla ji ba mu jekk daal di yël yëkkati wenn sémmiñ aw sémmiñ daal di koy lonkal yàlla ci mbagg mi ni ko fi mu ne nii nag wax dëgg yàlla man mag laa te damay teel a tëdd léegi nag sémmiñ waa ngoog bu fekkee gars yi ñëw nañ bu yeboo nga jéem a jëflanteeg ñoom ndax bu ñu ko doon def bëccëg ma fegal la ko allahu akbar yéen ay ree nag waaye kii ci fullaam la nekk maanaam fi ne yéen ñi yéen a ngi si moom ci fullaam la nekkoon ndax amoon na yaqin ci ni yàlla ji mën naa fegal ay lor ah yow koo xam ne boo jaaxlee ci moom ngay dem mu dimbali la koy wax dëgg yàlla war naa mën a dimbali boppam loolu la ibrahima waxoon hal yanfaunakum aw yadurruun moo ndax yéen yàlla yi mën nañ leen a jariñ wala ñu lor leen é gis nga li ma taabudu ma la yasma wala yubsir wala yuxni anka shay'an ibrahima amoon compréhension bu yëg-yëg boobu ay ñeen ñoom amuñu ko ndeysaan xale yi daal di ñëw fekk góor gi tekki semmiñ bi ñu wekki semmiñ bi sànni fële jàpp yàlla ji watat bi yoon nag dañ koo watat ba ci pegg teen ba teen ba dandeeg sën ba xam nga léeg-léeg ñoom ay teen yoo xamante ni sën lañ koy mujj sopp ca pegg teen ba ñu teg ko fa daal di watat xaj bu dee teg ko ci kaw bopp bi ndeysaan góor gi daal di yeewu bi mu yeewoo gisut xiram bi mu mer daal di génn di ko topp di ko topp di ko topp ba yegg si ci teen bi fekk ñu tëral yàlla ji ay jonkanang ca yaram wa xaj baa nga ca bopp ba mu tiim di ko xool di ko xool di ko xool di ko xoolam yàgg mu ne arabu arabun arabun yabuulu solabaanu bi rasihi mu ndax yàlla dina fi nekk di xulle ba njàppaani di ñëw di saw ci kaw boppam ak di ca nefare mu ni bis ni ki tey nag gëm naa ni yàlla ju mënta fegal boppam ay lor du ko fegal keneen kooku yàlla gindi na ko allahu akbar bi mu tourné nag di ñibbisi ci këram ci la dajeeg ay gaay yoo xam comme consort Muaad geeg ñu defar ñu seen ko muy waaxu lool ñu ne ko ala rislik taxawal ala rislik mooy taxawal lu xew mu wax leen li muy yëg ñu ne ko kaañ dem ci yonent bi nga wax ko li ngay yëg ci la ñëw ci yonent bi wax ko ko yonent sa salam daal ni kii la yàlla ubbi na dëndam pour dugal ci lislaam loolu mi ngi nekkoon ca lëggéeyam Muaad ñoom ak ña nga xamante ni ñoom ñooy ñam doon àndal comme ni ko imaamu Zahabi nettali ci Siyar Alamin Nubala Muaad ibni Jabal nan la ko yonent bu bëggee woon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gis nga muaad bu yonent bi yegsee madina borom xam-xame dañuy wax ni laazamahu mulaazamata al ayni li uxtiha gis nga bëtab ndey joor bu doon mooy yonent bi saa salaam ñu ni bëtab càmmoñ ni muy àndeeg bëtab ndey joor mos ngeen gis bëtab ndey joor dem te bëtab càmmoñ demu fa fu mu ñu ni bëtab ndey joor ni mu àndeeg bu càmmoñ noonu la Muaz doon àndeeg yonent bi saa salaam loolu nag mubaalaxatun fil misaal maanaam da lay wan ni da koo taqoon lool sallallahu alayhi wa sallam jàng ci moom te xam ngeen ni wax dëgg yàlla bëtam nday càmmoñ ñam taqee bëtam nday jor ku ko jege nit nag wax dëgg yàlla bu dee borom njariñ nga war a mën a jariñ ci moom moo tax muaz ak jariñoom ci yonent bi gaaw lool sallallahu alayhi wa sallam bal nag mu bugg min mu mujj min alami sahabati bi kitaabillahi wa sunnati rasulillah mu mujj nekk ñi gën a xam ah ci sahaaba yi njàngale yàlla akub yonenteem doy na ca loola rek mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xudul qur'ana min arbaatin da ngeen a bëgg a jàng alquran ñu ni waaw mu ni bu ma fi nekkul ñeenti nit a ngi ñi ñoo xam ne ku ngeen ci dem doy na sëkk xam ngeen loolu ab seede bu rëy la kooka muy ibni mas'ud nga xam ni moom la yonent yàlla bi ne woon ku bëgg a jàng alquran ju tooy xépp comme ni ko jibril wàccee déglul doomi ummu abdi ji mu yebni mas'ud ubay ibni kaab nga xam ni yonent bi dagaan wax kaay yàlla moo ma yebal ci yow nee na naa la jàngal lam yakun alladina kafaru min ahli kitab ubay nga xam ne moom la omar tànnoon mu nekk imaamu tarawih ah ak salim mawla abi xudayfa ak muaad ibni jabal salim mawla abi xudayfa nga xam ne jaam la woon bu dem bay jiite sang yi ndax quran ay sangam gis nga moo tax bàyyi salim mawla abi xudayfa bokk na ci lim doon wax dana di daa xool salim ah bàyyi abi xusayf abu xusayfa ah daa xool saalim ba mu yàgg mu ni dëgg dëgg dëgg alquran a garaaw nu muy def nit mu ni xanaa du yow yaa nekkoon jaamab sama doom may wax nga dem ba léegi bu ñuy julli yaay jiite alquran a gaaw ci nu muy yëkkati te kat di woon julli de bi muy wax loolu maanaam saalim abi xusayfa moo ko moomoon abu xusayfa nag baayam moo doon wax loolu nga xamante ni abu xusayfa moo tabanni woon ki nga xamante mooy saalim ni saalim sama doom la ba alquran bu dikkee ne uduuhum li abaihim ñu doog a dindi àtte boobu mu ne alquran moo garaaw nu muy def nit yow barki démb boo njaay nga nekk fi suq nekk fi jaam tey bu ñuy jiite ah moom la ñuy jël def ko imaam lu tax parce que moo gënoon a jekku alquran noonu la alquran di def nag ba tey nag ila yawmina hada anas ibni malik nee na yonent bi nee na arhamu ummati bi ummati abu bakr wa ashaddukum fi diini llahi umar wa asdaquha xayaan Ousmane wa aalamuhum bilxalaali walxaraam Muaad ibn Jabal yonent yàlla bi nee na xeet bi ba mu daj kap ki ci gën a ëpp yërmande ci xeet bi mooy Abubakrin Siddiq allahu akbar wa ashadduha fi diinillah ki gën a tar ci diina yàlla ji mooy Omar ibn Alxataab ki gën a dëggu gën a sell gën a mat ak kersa gu bari mooy Ousmane. waaye ki gën a xam yi dagan ak yi daganut mooy muaad ibni jabal muaaz nee na benn bis ci teral gu ko yonent bi doon teral mooy yonent bi daa yéeg ci kaw mbaam mi ni ma kaay ma togg la ñu ànd allahu akbar loolu day wane tawaaduu nabii sallallahu alayhi wa sallam ndax danoon war mbaam ah yonent danoon war mbaam de kuñ jàpp ni doo war mbaam leneen ngay war juyaa nga ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi danoon war mbaam sallallahu alayhi wa sallam ni muaaz kaay ma togg la war mbaam ci boppam rek kéemaan la rawatina ak mu am ku mu wax kaay ma waral la gis nga de mbaam moom ne ne mi ngi tudd na Ufayr soo demee ci saxiixul Buxaari am na benn buntu daf koo tuddee baabu ismil farasi wal ximaar moo tax imaam Buxaari kéemaan suñu borom la woon. moo tax kenn ci borom xam-xam day wax ni boo bëggee xam comme ni Ibn Hajar sax da koy wax boo bëggee xam fiqu Buxaari da ngay xool ni muy tëree ay buntam baabun buntu bii. ah loo ci na ma jàngale Buxaari mu ni mbaam nu muy tudd ak fas nu muy tudd mu daal di ci indi xadis bi wane ni kon yonent bi amoon na mbaam mu tudd Ufayr ah wa kadalika fas wu tudd dul dul amoon na tamit kadalika gileem gu tudd Qaswa yooyu yëpp ay yu wér la nekkul ay xuraafaat ak nettali waaye lu wér la ku jàng siira rawatina bi ci gën a màcc muy bidaaya wa nihaaya bi ibni kathir boo demee am na buntu spécial boo xam ni mbaam yi yonent bi amoon biinum tudd beenum tudd nga dikk ci fas yi nga dikk ci giléem yi ba jaas yi amoon yém doon xeexee mbubbi koŋ yi loola lépp boo demee ci ibni kathir bi mu indee dund yonent ba mu jeex di indi jeexintalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi mbàyyi ci kaw suuf indi na fa loola kon Muaad ibni Jabal radiyallahu anhu kon gis ngeen lii qiima ju rëy la joo xam ne yonent bi joxoon na ko ko ca la ko waxee ni ko ey muaad mu ne naam ey muaad ba muy ñetti yoon mu ne ko inni uhibbuka fillah muaaz giñ naa ci yàlla ni man dama laa bëgg ngir yàlla allahu akbar xaw ma xaw ma yii yii kàddu ju ko muaaz déggee yan tànk la doon doxatee ci kaw suuf moom la benn borom xam-xamu ta histoire siira di wax ni nee na am na kàddu yoo xamante nii bu ko nit xasee dégg ci làmmañu yonante bi soo maroon na bàyyi doxee tànk ngay naaw da nga koy def ndax kontaan ah ndax su boobaa sa yaram bi ci boppam say tànk dootu ko àttanati ndax kontaan yonent bi ni ko kaay nag soppe bu nekk daa war a dénk soppeem ca la ko waxoon suñ ñaan gu siiw googu nga xam ne ku sàggan ci ku ne boo jullee yaa ngi koy def mooy mu ne ko Muaad comme dama laa bëgg ngir yàlla dénkaan bi mooy bul fàtte mukk ci àddina saa boo jullee ba sëlmal waxal allahumma ainni ala dikrika wa shukrika wa xusni ibadati zikr boobu nga xam ne képp ku sëlmal da nga ko war a def yent yàlla bi ni ko da ngay wax allahumma yow yàlla ainni yàlla na nga ma dimbale jàppandalal ma ala dikrik ma di la fàttaliku wa shukrik di la sant wa xusni ibadatik rafetal ni ma lay jaamoo fàttaliku suñ borom ak di ko sant ci ay xéewalam ak rafetal ni nga koy jaamoo égal tàbbi àjjana moo tax ñaan bu am solo ngi boo xam ni nit ki dafa mel ni énergie bi nga war a toppee suñ borom da nga koy ñaan yàlla pour mu dimbali la ci moo tax ñaan bu ëpp naa ñàkk a xam di ko di góorgóorlu ci di ko def muhammad ibni kaab al quradi nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na muaz ibni jabal day su borom xam-xam yi dajee moom nii rek ca kanam radiallahu anhu wa arda benn bis da koo xool ba mu yàgg mu ni niama rajulu muaad ibni jabal waay waay kii moo baax waay kan mooy muaad ibni jabal moo tax saxaaba yonente bi salaa sallam loolu la ñu xamoon ci moom abdullahi ibni masud doon wax ne inna muaad kaana ummatan qaanitan lillah benn waay ni ko i da nga yàq alquran yow da ngaa juum mu ni ko juumuma de aaya bi lan la woon inna ibrahima kaana ummatan qanitan lillah maanaam waa ji dafa dégg abdulahi masul nan inna muaadan kaana ummatan qanitan lillah mu jàpp ni alquran la bëggoon a jàng war a wax ibrahima juum ni muaad mu ne ko juumuma de bët bën doon xoolee ibrahima caw jamono moom la ñuy xoolee muaad ibni jabal ci suñ jamono allahu akbar mu ne lan mooy alqaanit ñu waa ji ni ko waa kon lul alqaanit mu ne ko muallimul xayr walqaanit ah mu ne ko lan mooy umma mu ne ko al umma mooy muallimul xayr lan mooy qaanit mu ne ko al mutiu lillahi wa rasulihi te ñaar yëpp muaz dajale na ko muhammad ibni suhayli ibni abi xasma nee na ñi doon def fatwa ci jamono yonent bi saa sallam ñeent la woon ah wala boog ñett ci muhaajiruun yi ak ay quelque ñett ci waalan saar boo leen boolee juróom-benn la ñuy doon tey nag moom kullu naa yufti léegi moom ku jàng laxdari moom bu fekkee wér na ni jàng ko ba mu jeex moom léegi mufti ngay doon moom lu garaaw a ngoog mbokk yi gis nga fatwa fatwa ci diine wallahi bu ñu xamoon danger musiba bi ci nekk même yow mi ñu yaakaar ni sax am nga xam-xam da nga koy daw ibnul qayim rahimahullah am na téere bu mu taalif tuddee ko maa ngi fàtte turu téere ñeenti mujallad la boo demee ci muqaddima bi ngi wax ci fatwa xëy na la àlla balay dars bi jeex sama xel ñëw waaye téere boobu ñeenti mujallad la léeg-léeg am ñu ko booy def ko ñaari mujallad mi ngi wax ci wàllu fatwa soo demee ci muqaddima bi ci commencement ba téere ba dafa indi ña doon fatwa ci jamonoy saxaaba ya ca góor ña ak jigéen ña mag ña ak ndaw ña waaye ba mu noppee dafa indi danger yi nga xam ni moo ilaamul muwaqiin an rabbil alamin téere ba ngi tudd noonu téere baa ngi tudd ilaamul muwaqiin an rabbil alamin yëgal gu ñuy yëgal gaa yi nga xamante ne ñooy tàbbi di waxal yàllaa ko bu yonenteem ah ci mbir yi nga xamante ni moom la ñuy wax nga xam ni téere boobu subhanallah da ci indi ay mbir yu garaaw yoo xam ni yow mi ko dégg moom doo pare da ngay suur këll fatwa même masala bu ñu la ko laajee sax da nga naan laajaatal diw ñun nag moom dafa mel ni affaire bi dafa saf suukar ci ñun maanaam ñu laaj la masala rek nga gaaw tontu dafa mel ni dafa saf suukar ci ñun fekk déedéet même yow masala mi soo ko jekkoo sax demal nga laajte ji moo gën a wóor ndax yëgal ni yow saa boo fatwaayee te la nga fatwaa jooyoo nag la yàlla jàngalee ko bu yonenteem boo amul àq ci fatwaa yëgal ni dugg nga ci buntu ataquluna ala allahi ma la taalamun waxal yàlla loo xamul te yàlla ne wa man adlam kan moo gën a mën a tooñ ci waa ji nga xam day waxal yàlla ak bu yonenteem loo xam ni waxu ko ci muhaajirin yi omar osman ali ci lansaar yi ubay muaad zayd daanaka ginnaaw bi la affaire bi commencé waat am ñoo xam ne dañuy fatwaat ci li nga xamante ni moom mooy ci jamono jooju alladi yu azim kuy noonu ala rasulillah kon ñooñu mbokk yi ñoo doon fatwa ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaata junni ci ay junni nit léegi suñ nee la mbokk yi ñii ñoo doon fatwa est ce que mbokk yi ñooñu rek ñoo doon toog ci xalqab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déedéet ay junni junni nit ay téeméeri téeméeri nit jàng nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xool mbooloo ma la ñuy bari bari bari di xëy di jàkkaarloog yonent bi ak seen xel yu neex yi yonent bi jàngale waaye taxul ñu ñeme fatwa mbokk yi li tax fatwa garaaw mooy léeg-léeg da ngay tàbbi ci ay mbir yoo xam ni mën na laa topp ba ngay dajeeg sa borom ndax boo amul sens am na loo xam ni boo ca fatwaayee mën ngaa tas sëy bu wër ta tas mbaa nga takkaat sëy boo xam ni waroon naa faa jaare ba faw mbaa nga xañ miiraas ku ca waroon na bokk mbaa nga boole ku wër ta bokk mbaa nga teqale ñu waroon a ànd mbaa nga àndale ñu waroon a tax ànd mbaa nga wax jigéen lu tax mu toog bañ a julli te fekk war naa julli ndax mbiram gis baax la mbaa nga ni ko jullil fekk lii ñëw gis baax la mbaa masala moo xam ne nag la ca gën a garaaw mooy mën nga koo wax tuurum deret am ja ndax am na masala yoo xam ne saa boo ko xësee wax yëgal ni bu doon lislaam ay àtte moom rey bakkan da cee daal di topp moo tax gis nga ñi xam wallahi boo gisee li tax ñu am dal ci masala yi lii moo ko waral gis nga am na masaayil yoo xam da nga yaakaar ne da nga koy wax nii rek affaire bi daal di jeex mu dem déedéet maanaam sharia da aw doxiinam dafa am masala yoo xam ne su xësee génn dafa am yeneen yu ca war a topp moom la sunu cheikh bi doon wax ci jamono yële nga xam ne ni ñu ne wax diw lañ war a jaayanteel amirul muminin yow boo nee diw lañ war a jaayanteel amir waxuma sax ay naan lu ca Buxaari wax ak lu ca mus yooyu moom jërul sax ngeen koy toppatoo ndax jàpp naa ni la ma waxoon mbokkee ci jamono jooja foog naa ni masalay tiim mokk gut masalay sangu set mokk gut jàpp mokk gut yaakaar naa ni war na noo am yitte ci yeneen i masala yu dul diw lañ war a jaayanteel wala diw waruñoo jaayanteel moom. léegi bàyyil yooyu yëpp nga ñëw ci su fekkente ni dañ ni jaayante nañu ak diw. la cay njëkk a topp la ca war a njëkk a topp mooy képp ku déposé te ni daa bëgg a nekk président dañ ko war a rey kon su boobaa dégg ngeen wax ci saa bu ñu nangoo ni diw dañuy jaayanteeg moom mooy amirul muminin ku déposé te candidat dafa bëgg di nekk président daal dañ ko war a rey loolu loolu loolu loolu du njaaxum yow koo xam ne teg nay luwaam nee na man àttewuma lislaam yaa xi bàyyi ko àttewuma lislaam man lay wax leer na ku ni la xëy nga ni naam mu ni atte woowuma lislaam laa wax nga ñëw ni ko yow yaay jaayante ci loo jaayanteeg moom man de xoo booy jaayanteeg moom loo koy wax moo tax waxoon naa leen ci jamono jooju neen boo delu sunanu imaamu nasai abdullah ibnu omar ba mu dajeeg amir ba mu ni ko kaay jaayante mu ni ko ah maag sama waa kër ñëpp de mën nañoo ñëw jaayante si waaye ala kitaabillahi wa sunnati rasulillah moom koy tënku ci téere yàlla beeg sunna yonent bi sa salam kon fi ne yonent yàlla bi nee na saa bu ñu dëppoo ci ni kenn moo jiite su dee ci àttey lislaam laa wax bu ñu falee benn amir ba pare ku taxaw nekk opposant dañ laa war a rey ci lislaam laay waxee lislaam maanaam bu ñu àtte woon ci lislaam ba ni kii mooy amirul muminin benn waay daggee ca làng ga ñëw naan déedéet du ko fi doon maa koy doon kooku moom dana war a dagg baatam yent yàlla bi neen seeni mbir saa bu dëppoo ci benn mbir benn waay ñëw bëgg a tas seen mbooloo ngir naan man la man la dagg leen baat boot baatu kooka kon fi nekk ni tuurum bakkan moom daa fa naan fa ngay jëkk a tàmbali nga doog a nag andi ci yeneen atta yoo xamante ni moo ca nar a topp yoo xam ni moo tax masala yi mbokk yi ku ci mën a teey teey ci ndax dafa am masaayil yoo xam ne yu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw la léeg-léeg ah da ngay gis nit ñi nga xam ni yàlla baaxee na leen ci sori ci àll wo dañuy teey lool ci masala yi teey ak ku ragal ndax ku xam fa nga jëm xóotaay ba ah da ngay ragal su ko defee yu mel noonu moo tax mbokk yi nañ ci bàyyi xel baax a baax soo nekkee ndongob xam-xam comme man wax dëgg yàlla am na masala moo xam ne sa soo fi xam nga loolu loolu ñun dañ koy dañ koy bàyyi xel dañ ko dul bàyyi xel yow sa soo fi su doon da nga ni maa nekk ci dëkk bi yow rek yaa fi nekk yaa fi raw yaa fi tane nit ñi xamuñu dara ay innocent lañ dañ naan yaa fi sës waaye yow sa soo fi yow waxuma la sax ay ay ay borom yi xam-xam waaye ay nit yu la raw ci àll wa sax ñi ngi fi comme sa soo fi kay noppalal sa bopp demal laaj ko diw kay defe naa yomb na lool loolu mbokk yi daa yomb lool boo mënta dóor rek paas ko keneen gis nga waaye nit ki dafay sawar mel ni affaire bi maccum tàngal la mu saf ci tontu ay masala mel ni affaire bi dañ ci am ak pay wala ab yool déedéet yow fi mu nekk nii boo de boo dawee dawee masala mi bàyyi ko ka xam mu tontu rek noppal nga sa bopp yow moom kay nga teg coono tey soo demoon ba nga sës fi sax yàlla jox nañu ci ay jumtukaay loo xam ne xoola jumtukaay yi tey jii mel na mas foo mën a ne ci àddina masala mun a jaaxal tey boo jokkoo téléphone am koo mën a woolaaj ko waaye ñun moom dañoo sawar ci ay tontu masala lool su ko defee léeg-léeg nga tontu nit loo xam ni subhanallah léeg-léeg nit toll foo xam ni sëy ba dafa war a tas saa bu ñu àndaatee njaalo la parce que baada zawjin la nga wax loo xam ne mooy tax ñu àndaat la ñuy sëy lépp dara valable ci léeg-léeg mbir am nga ne déedéet sëy ba yàqu na jeex na te fekk dañoo waroon a ànd tàqali nga tàqale nga ñaar yu waroon a ànd yii nag ay xeet yëf yëfaan la yoo xam ni qatratun min bahr ab toq la buñ génne ci biir géej gi waaye boo ko toppee masail yi nii la mel moo tax ibn al qayim rahimahullah ci téere boobu di ilaamul muwaqiin an rabbil alamin andi na ca masail yu bare bare bare surtout al masail al muasara surtout nag masail al muasara ndax masala yi nga xam ne yàgg yàlla mën ngaa ubbi téere rek gis wax waaye masaayil yi ma wax ah dagg ci cër bi taf fee dagg ci cërëb jàmbur tafal ko jàmbur opéré xolu kii jox ko defal ko xolu kawsu ah def ci yaram wi loo xamante ni ay ay weñ la ah jël doom def ko ci foo xamante ni yaay du koomb doon te ndoxum bàyyi lay doon yooyu ay masaayil la yoo xamante ci nawa nawaasil yi la bokk mu asara daf ñoo dab yooya moom bul ca sax di jéem a dugg moom bul ca sax di wax ndax fu mu toll ci xam-xam rek. yàlla tàggat na ay borom yi xam-xam yoo xam ni masala bu ñëw suñ ko delloo ci ñoom ñu wax ñu lan la ci yàlla wax ak yonenteem gis ngeen jamono yi passé àddina bi nim mel ak riir mi coow li fitna yi xew ci àddina bi yu mel noonu suma classe bi dañ cee war di noppi dañ cee war di noppi ndax li ko waral mooy am na masaayil yoo xam ni la nit ki waral laaj am ci ay élément ba wax ca du xam-xam rek déedéet du xam-xam rek bal sax nag mbir mi daa yegg ca ba même boo jekku woon ci histoire la xew nga jekku ci xam-xam la xew day laaj borom xam-xam bi ne ca barab ba mbir may amee moo ca gën a placé wu. subhanallah xoolal xoolal mbir yooyu maanaam yow information yi nga war a jot yépp jot nga ko document yi nga soxla yépp teew na masala mi nga soxla ci xam-xam yépp teew na waaye am na borom xam-xam bi ne ci place bi moo gën a xam. ya nga xamante ni moom mooy àtte ya méngoo ko est-ce que xam ngeen ni benn borom xam-xam dana fatwa fekk lim fatwa lu wér la waaye valable fañ ko fañ fa mu bëgg ñu jëmee ko fa. xaw ma xam ngeen li may wax xam déet maanaam fii ci Dakar mën nga fay laaj benn borom xam-xam mu fatwa fi loo xamante ni ma nga ca ginnaaw wurusoo gi fekk borom xam-xam bii nga laaj ci Dakar su demoon ba yegg gis xaala ba du wax du wax li mu waxoon loolu sabab la ci. boo xoolee al fiqhu ala al madahib al arbaa ku mel ni Shafii ak ñeneen da ngay gis léeg-léeg ñu naan lii mooy waxu Shafii bu yàgg ba loolu moom ñu jàng fiq xam nañ ko léeg-léeg nga dégg benn masala ñu ne lii mooy waxu Shafii yu yàgg ja lu ko waral mooy day ñëw Égypte fekk réalité yam fay fekk du bokk ak bi mu demee Màkka wala Madina réalité yam fay fekk wala léeg-léeg mu dem ba mu yàgg mu gis ni masala mi kat la caa juumoon te li gën a garaaw nag mooy juum ci masala ba noppi yëg ni juum nga te nangu woo dëpp foofu moom mooy musiba ja xam nga ki tane sax mooy ki nga xam daa juum ci masala dal di nangu rectifié waat waaye ni man damaa juum ba xalangu allahu akbar est ce que xam ngeen ne loolu day waral nopp yi lay dégg sax dañ lay gën a bëggaat ma joxe ko benn misaal waa ji nga xam ne daa ñëw xutba juma mu wax benn njaaxum ci xutba ji joo xamante ni ab njuumte la ñu rectifié ko xutba ji dellu si waat mu ni àjjuma ji paase kat sama xutba bi juum naa ci nangam ak nangam diw sàngam mii moo ma corrigé jazaahullahu xayran loolu man dama seetlu ni day waral ñi koy dégg dañ lay gën a bëgg xaw ma affaire daal xool naa xool xaw ma lu ci yàlla def maam ñi koy déglu loola nit ki koy def day yaakaar loolu day wàññi martabaam fekk déedéet nit ñi dañ lay gën a bëgg xaw ma nag lu tax affaire bi xaw ma lu tax day mel daal yàlla tawaadu bi nga am day firnde maa tawaadaa abdun lillah illa rafaahu llah saa bu nit ki woyofalee boppam rek yàlla yëkkati ko waaye nit ki su fekkee daa juum ci masala jàpp ne bu ñëwee mu ne man maa juumoon ci masala mi loolu day tax mu gën a wàcc ci nit ñi kenn boo wàccee ci nit ñi te yéeg fa yàlla subhanahu wa taala loolu baax na kon mbokk yi loolu ñu bàyyi ci xel moo tax Muaad bin Jabal bokkoon na ci borom xam-xam yi fóore yi lu tax mu ñemee fatwa moom Muaad parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ko seedeel lu tax mu ñemee ko Omar ibn al-Khattab ne na man araada al fiqha falyati Muaad ibn Jabal ku bëgg fiq bu leer mu ni demal ci Muaad ibn Jabal radiyallahu anhu te xam ngeen ne Omar man arifa Omar arifa qadra Omar xam ngeen ne Omar du wax di waxantu yàlla nag def nit ñi dañuy bëgg Muaad ibn Jabal yàlla dafa def nit ñi dañoo bëgg Muaad ibn Jabal yàlla dafa def subhanahu wa taala ñenn ci ñi nga xamante ni ñi ngi yëngu ci diine tey góorgóorlu tey jëfee ba yàlla bëgg leen sunu borom day def ak cofeel ci xolu jaam ñi xadis boobu nekk ci muslim defe naa yéen a ngi koy fàttaliku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na muy xadisu abi hurayra yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam su yàlla bëggee benn nit nga xam ne sélection bi jàll na diw moom génn na yàlla bëgg na ko sunu borom day woo jibril ni ko jibril kaay jibril ñëw mu ne ko man yàlla de diw sàngam tabb naa ko bis ni ki tey da bëgg naa ko ah jibril ni ah man de kon nu may def lu dul bëgg ki nga xam ne sunu borom yàlla bëgg na ko aywa naam sunu kës ki daa naam kon mu ne ko nan laay def lu dul bëgg ki nga xamante ni yàlla bëgg na ko jibril daal di woo waa kaw asamaan ni leen yàlla de bëgg na diw kon yéen waa asamaan bëgg leen ko mu ni thumma yudaau lahu alqabulu fi l ard thumma yudaau lahu alqabul fi l ard yàlla daal di koy defal li ñu tuddee qabul qabul mooy ñëpp lay bëgg loolu day am nag léeg-léeg nit ki yàlla da koy bëgg subhanahu wa taala day def ci xolu nit ñi nit ñi bëgg ko maanaam nit ki ko bëgg sax mën nga ko laaj yow lu tax nga bëgg diw moom du mën a justifier sax maanaam nit ki mën nga ko laaj waaye yow lu tax nga bëgg diw moom du mën a justifier sax ba mu ba mu leer lu tax mu bëgg du ko xam day jékki-jékki rek gis ni yàllaa ko def ci xol yi loolu nag mbokk yi man qabatun azima martaba ju rëy la joo xam ni maam nit du xëy rek am ko dafay lëggéeyal yàlla subhanahu wa taala muaad ibni jabal bokkoon na ci sënf boobu ci sënf boobu jamono yële passé maa ngi suivre ci internet bi cheikh bu mag cheikh Abu Ishaq al Huwayni benn borom xam-xam di ko laaj ci laaj yu mel nii mu ne ko ñaari yëf dama koo seetlu damaa dégg léeg-léeg ci say ñaan ngay ñaan yàlla nit ñi nan la bëgg jaami yàlla yi nan la bëgg ñaareel mu ne ma seetlu ni effectivement nit ñi nan laa bëgg benn journaliste moo ko doon laaj Abu Ishaq al Huwayni ci borom xam-xam yu mag yi gën a mën xadiis tey ci àddina bi la bokk. cheikh nasrul albani nga xamante ni daanaka xam sunna bu set xam na ko bi ñu ko laajee koo jàpp ni mën naa toog sa place ci xam-xamu xadis boo faatoo dani abu isaq al xoyni loolu loolu loolu seede bu rëy la mbokk yi cheikh albani moo ko waxoon ci abu isaq abu isaq bi ñu ko laajee laaj bi mu tontu mu ni mu indi ay athar ay tegtal mu ni wane ni maanaam ci saxaaba yi ku mel ni muaz ku mel ni abu hurayra doon na ko def ndax abu hurayra ñëwoon na ci yonent bi saa sallam ni ko yonent bi ñaanal ma jaami yàlla yu baax yépp bëgg ma loolu bokk na ci ay tegtalam mu ni moo tax kon nit ki mën naa ñaan ñaan boobu mu ni nee na yàlla nangul ko ñaan ba ba Abu Hurayra naan képp ku ma dégg fii ba yobal xiyam bu dee ko gëm yàlla nga dig ma bëgg te loolooy li am na te laa sakka ni góor googu yàlla na yàlla sàmm ko musal ko ci lépp lu koy yàqal ba faatu dikkal ko ci borom xam-xam yi ëpp xabul tey ci kaw suuf la bokk xam-xamu xadis moom ñi koy gëstu di ko jàng xam nañ ni borom bi dafa def da koo jekku te jekkantuwuk li ñu tuddee tamakkun tamakkun mooy jekku li ngay def nga xamante ni kii moom wóor na li muy def jekkuwu ko waaye moom moo jekku li muy def maanaam xam-xam bi jekkuwu ko waaye moom moo jekku xam-xam bi kon Muaad ibni Jabal loolu la ko suñu borom defal Ataa ibni Abi Rabaax nee na jëlee nañ ci Abi Salamat al Xawlaani nee na benn bis damaa dugg ci jàkkay Xims nee na ma gis lu mat fanweeri paa ñi ngi toog benn xale nekk ci seen biir rafet lool am sàkkara yàlla ne tekk yëngatuwut bët yaa ngi ñuul li wër mel ni lu ñu tusngal nee na ma gis léeg-léeg nit ñi bu ñu waxtaanee ba yàgg rek ñu gestu laaj ko daal di continuer seen waxtaan nee na ma daal di jege si bi ma jege see ci laa sentir ni sama xol mi ngi koy commencé bëgg te man xawma waa ji kan la xoolal day doog ak seen mu ne xawma waa ji kan la mu ne ma laajte waaw kii mooy kan ñu ne ko kii mooy Muaad ibni Jabal beneen riwaaya ci abi Idris Idris al xaw xawlaani muy ma duggee masjidu Dimashq ma gis benn waay boo xam ni soo jàkkaarloog moom xar kanam gi siiñ beeg sàkkar yàlla bi ngay njëkk a gis nee na maa ngi gis nit ñaa ngi ko wër mu toog di jàngale nee na ma daal di waaw kii kan la ñu ne ma kii mooy Muaad ibni Jabal ma ne waa baax na ba suba suba de moom du ma tardé moom suba dinaa teel a ñëw nee na ca suba sa rek ma gaaw teel a yegg si nee na bi ma yegsee fekk mbooloo mi jàng yegseegul nee na ma daal di jege si bi ma jege see fekk mi ngi naafila di julli mu ne ma toog di ko xaar nee na ma nuyu ko mu daal di pare nee na bi mu paree ma ne ko jàbb loxo ni ko saawaay mu ne naam ma ne ko inni uhibbuka fillah saawaay man bëgg naa la ngir yàlla xaw ma yaay kan waaye man bëgg naa la ngir yàlla nee na bi ma nee bëgg naa la ngir yàlla mu ne ah mbaa yàllaa tax waa ji ni waaw waaw mu ne ko ah mbaa yàllaa tax ba muy ñetti yoon mu ne ko waaw nee na mu dal di jóg mel ni ku may poñe nee na bi xam nga li li mu ko commencé def mu tiit nee na mu daal di jóg téye fii téye fii mel ni ku may poñe xaw ma lum nar mu daal di may gësam tuuti daal di ma bégal yonente yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam sama yërmande man yàlla. garanti naa ko ci dina tàbbi ci kaw ñi nga xam ne dañoo bëggante ngir yàlla di dimbalante ngir yàlla di ziyaarante ngir yàlla mu ne ko bégal loolu laa lay do do dooleel tey te loolu xam ngeen ni sunna la loolu sunna la nit ki gis nit bëgg ko ngir yàlla wax ko ko déedéet sunna day tere sax nga denc ko yent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp ko gis sa mbokkum jullit nga bëgg ko ngir yàlla yeggee ko ko yeggee ko ko loolu sunna la de maanaam nekkul yaay am say intention say affaire yu neex nga di déedéet ngir yàlla rek mu ne yeggee ko ko looloo waral boo delloo ci téere azkar yi muy nit ki bu la waxee inni uhibbuka fillah nga ne ko ahabbaka allahu alladi ahbabtani bi bëgg naa la ngir yàlla nga ne ko yàll na la yàlla mi nga xam ni moo tax nga bëgg ma yàll na la yàlla moom bëgg yow it kon kooku mooy Muaad ibni Jabal loolu ab xaaj bu njëkk la ci dundam incha allah dars bii di ñëw dinañ yeggale dundam nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla na yàlla baril ay muaad yu bare bare bare yu mel nii yàlla na yàlla delloowaat xeet wi ca seen melokaan woowee nga xamante ni mooy melokaanu saxaaba ya yàlla na suñu borom defal ñu tawfiq ba mbir mi ba ñu nekk loo xam dañ koy dégg rek waaye ñu jëfe ko hada wal ilmu inda allahi taala wa sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain